boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàtte bés fu def cloche bi foo leen mën a ne ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo rabbil karimin waa sin xayri mahbudi sukuri la daa daari wa fil bahri wal bidi إلهي حكيمنا في عنصر تفضلي خني ومخن جو joo joo data di sunu mbokk yi ñuy déglu te dañuy seetaan asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu su ngeen jàkkaarloo ak ñun ci jamono ji ci pak bu sell bi di ngaabu jàkkaarloo ak sang bu sell bi sëriñ Modou Mayloo xalifa sëriñ Hamzatuloo mu feggoo ak mboolem njaboot gépp feggoo ak magi taalibe yi seen xel dana war a dem si bisub jàmbaari lislaam ja murit saadix ba ka booliwul woon sëriñ tubaa xaadimu rasuul ak lenn muy sëriñ Hamzatuloo bis boobu nag at mu jot ñu koy woote fii ci ngaabu ren nag ñu koy woote ci ndigalu Serigne Touba Serigne Mountakha Mbacké xalifa général kullu murit mi ñëpp di ñaanal fan wu gudd lool wu ànd ak wér yaram Serigne Mamor Mbacké xalifa Serigne Massamba Mbacké ak mboolem njabootuk Serigne Massamba Mbacké gépp Serigne Modou Mayloo xalifa Serigne Hamsatou Lo ginnaaw bu mu ci waxtaanee ak mboolem ñim siqal Serigne bi ñu jàpp ko gaawu juróom-ñeenti fan ci weeru décembre 2023 yemoo ak ñaar fukki fan ak juróom ci weeru wolof ñu koy yëgal ñëpp bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu ñenn bàyyiwuñu kenn képp koo xamante si yaa ngi sëtoo ci soxna isa mboolem njabootu xaadimu rasul mboolem buntu kër cheikh Serigne Touba yëpp looloo waral tey ñu teew fii ci kanam Serigne Modou Mayloo fas yéene yëkkati kàddu yi woote ak soññee jëmale ko ci bis bi dañ jëkk jëbal kàddu gi Serigne Alhaaji Loo ibnu Serigne Ibrahima Loo moom Serigne Cheikh Loo Hamzatu mu woote ci turu Serigne Dam Loo bu ñu àggalee jébbal kàddu gi Serigne Cheikh Boussa Loo mu yëkkati kàddoom ci turu njabootu Serigne Ibrahima Lo màggat bu ñu àggalee jébal kàddu gi Baye Moustapha Ndiaye mu soññi taalibe yi xam ngeen ne at mu jotatem seet yi dinañ taxaw taxawaay bu am solo looloo waral dinañ jébal kàddu gi Serigne Abdou Karim Lo mu yëkkati kàddoom ci turu seet yi ñu àggalee nag jébal kàddu gi Serigne Dame Lo xalifa Serigne Ibrahima Lo màggat mu yëkkati kàddoom ci turu Serigne Modou May Lo ak mboolem njabootu Serigne Hamzatou Lo gépp kon ñu jébal kàddu gi Serigne Alhaaji Lo moom Serigne Ibrahima loo moom Serigne Cheikh Lo Hamzatu mu yëkkati kàddoom ci turu Serigne Dab Lo. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ñu ngi nuyu mbokki jullit yëpp di nuyu mbokki taalibe yëpp di jéggulu kàddu yi ñu yëkkati ci kanamu sunu kilifa di nuyu sunu kilifa gi sunu ginnaaw di sëriñ Modou May Lo xalifa sëriñ Hamzatu Lo. jotaay bi ñuy toogee nag koo ko gis xam ne bis bu màgg bis bu tedd bis bu sell boo xam ne nii yaakaar naa waxuma yoonu murit waaye képp kuy wax asadu an laa ilaha illa allah xam nga bis boobu muy bisub sëriñ Amsatu Lo ñuy yëkkati sunu kàddu nag ginnaaw bi ñuy joxee ndigal ñu yëkkati sunu kàddu ci turu sëriñ ndaamloo moom sëriñ Cheikh Lo moom sëriñ Amsatu ci ndigalul magam ji di sëriñ di di sëriñ Modou May sëriñ bi nee na ginnaaw bi mu jullee bi mu jullee ci yonte bi sallallahu alayhi wa sant sëriñ Touba mi ngi am mbégte bu baax ci fekkee gi nga xam ne sunu borom may na ko mu fekkee bis bii ni mu ni mu ko teewoon daaw sunu borom may ko mu fekkaat ko ren ji ren ji loolu mi ngi ci sant yàlla bu baax a baax ginnaaw loolu nee na mi ngi koy yëgal mbooleem taalibe yi mbooleem jullit yi kër diine yëpp leen ko yëgal sëriñ bi nee na képp koo xam ne mooy sa bunt ci kër sëriñ Cheikh Lo Amsatou di sa bunt ci kër sëriñ Amsatou Lo nee na mi ngi la ko yëgal di la jox di la ko yëgal ba ba noppi nag di la jox ndigal ndax amul lu dul bis bii waaye nag amul ku dul sëriñ Amsatou waaye amul ku dul sëriñ Cheikh Lo ginnaaw loolu sëriñ bi nee na mi ngi ko yëgal képp koo xam ne. bokk naa yow sëriñ Amsatu waaye bu képp ko xam ne mi ngi mi ngi jox ndigal képp koo xam ne bokk naa ko sëriñ Cheikh Amsatu yëg yëgle boobu nag ak ak ak ak waaj goo nga xam ne ma laaj bis bi mi ngi ko ànd ak rakkam di sëriñ Cheikh Lo Baye Fall mi xam ne mooy jëwrinam ba pare nag yëmale ko lenn waaye nag di ciy dugalaale sëriñ Xaadim Lo moom sëriñ Abdul Karim ndax bu tuddee sëriñ Cheikh Lo tudd sëriñ Xaadim rek tudd na kër gi yëpp kon sëriñ bi mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. di wax ne daal bépp taalib boo xam ne dégg nga bis bi ñu dégg nga dégg nga woote bi mooy sa mooy sa soññee ñu fonk ko bu baax ndax kat taalib yi amul lu dul bisam kon képp koo xam ne sëriñ ndaa mooy sa kilifa bis bi nga am nee na ci boo ñëpp rawatina nag képp koo xam ne nii dëkk nga ci tund wi muy ngaabu sànqaay ngaabu xel daara ja ak tund yu wër fii yëpp ba di sam ñëpp li nga ko yëgal di ko yëgal ñi nga xam ne ñoo la bokkal kër sëñ Tuubaa waaye di ko yëgal ñi nga xam ne moom ñoo la bokkal kër Seex Masàmba gépp wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi ñuy déglu te di ñu seetaan mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu nuyoo bi gën a tedd te di leen siyaare te di leen baal wàq di fas yéene jëfee ndigal loo xamante ni bii moom lañ ñu jox mu dab ñu fi te eh, ndigal moom jëfe ñu ngi woo mbokki jullit yi mbokki bi yi ci bis bi nga xamante ni bii amuñu lu dul moom muy bisub màggalu ngaabu sànqaay di yëkkati suñu kàddu ci sëriñ ci turu sëriñ Ndaam Amsatu Lo moom xalifab Cheikh Ibrahima moom sëriñ Amsatu euh, mi ngi woo mboolem mbokki jullit yëpp di woo mbokki bi yëpp képp kuy wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah nee na mi ngi lay woo ci bis bi te di la ci séentu Euh, njaboot gi ñëpp dale ko ca euh, jëwriñ ja di Serigne Mouhamadou mayloo mi nga xamante ni bii ñoom ñëpp mooy seen buntu ci kër Sëñ Amsatu euh, ci kàddoom rek la ñuy waxe kon nee na sëriñ bi nee na ñi ngi woo mbokki jullit yi di woo mbokki taalibe yi di leen séentu ci bis bi ndax day bisum ndigal boo xamante ni bii amuñ lu dul moom te itam yaakaaruñ lu dul moom te itam fonkuñ lu dul moom képp koo xamante ni bii daal seen mbég sa mbég la te itam daa nga leen lebal wala nga leen di fay bor nee na ci bis bi lañ ko séentu ndax amuñ lu gën bis bi amuñ lu ko sut te it bis bi day ndigal loo xamante ni bii képp koo xamante ni bii xarit nga wala ngay soppe wala ngay am di jàmm bu bis bi agsee des na la ci woo ndax la ca Serigne tuubaa daale woon yéene nañ képp koo xamante ni bii yaa ngi wax ashadu an laa ilaha illallah ñu bokk ko ak yow euh, bis bi nag le 9 décembre la fii ci Ngaabu di ko yëgal mbokki mbokki deret yi di ko yëgal euh, mbokki ndaam yi di ko yëgal képp koo xamante ni bii li ko dale ci euh, njabootuk sëriñ Touba gi ci sëñ Mouhamadou Moustapha ba ci kër sëñ Mouhamadou Mour sëñ Mouhamadou Mourtala ñu ngi la ko yëgal te di la ci séentu li ko dale ci kër Soxna Fadja ba ci euh, ba ci kër Soxna Maymuna ñoo ngi leen ko yëgal di leen ci séentu di ko yëgal seexi sëriñ Touba yëpp te di leen ci séentu di ko yëgal mbokk yi nga xamante ni bii ñoo bokk kër Soxna Isa Ah, ñooñu nag buñ ci jukkee ñenn ñi rek day yóbbaale ñëpp waaye ñu ngi woo ñëpp ah niki noonu nag dañ ci buñ buñ ci jukkee sëñ eh, sëñ Baara Touré xalifab sëñ Mor Faati eh, ñu ngi ko ci woo di ko ci séentu ndax bis bi kenn ëppalewu ko ci ah, noonu lañ ci eh, noonu lañ ko yëgalee itam sëñ Moustapha Lo mi nga xamante ni bii mooy xalifab Cheikh Ibrahima Lo ak njabootu kër Cheikh Ibrahima Lo gépp di ko yëgal itam njabootu kër sëñ Cheikh Mbackeem sëñ moodu Faati Xarit sëñ Modou mbakke nekk ca bopp ba sëñ Xaadim di jëwrinam ñoom itam bis bi seen bis la ñu ngi leen ci woote di leen ci séentu ci woo waa région bi di ci woo waa rawatina waa commune bi ñi nga xamante ni bii ñoo bokk commune bi daal te bu bu dara xewee balaa kenn ñëw ñoo fii jiitu seen bis bi seen bis la ñu ngi leen koy fàttali te di leen ci séentu di ko yëgal it nag taalibe yi nga xamante ni bii yaakaaruñ lu dul kër sëñ Ibra Lo yaakaaruñ lu dul kër sëñam sëtu fu fi taalibe nekk fu fi daayira nekk ci réew mi muy saalum ak fu mën a doon sëriñ bi nee na mi ngi leen di yëg mi ngi leen ko yëgal te di leen ci soññi te di leen ci séentu te di leen wax ne lu ngeen ci daan def benn na ngeen ko ngeen ko yokk pas-pas bu ngeen ci daan bu ngeen ci daan pas-pas bu ngeen di ñëw rek pas-pas boobu nee na na ngeen ko yokk ndax bis bi kat bis la boo xamante ni bii ñoom de xam nañ ne képp koo xamante ni bii ñëw nga ci ak pas-pas ak yaakaar yaakaar jooja du tas waaw nee na nag ñi ngi ñaan ci réew mi jàmm kon ñi ngi nuyu ñëpp di siyaara ñëpp di séentu ñëpp tey baalu ñëpp ak wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. mbokki jullit mbokki taalibe yi ñu ngi yëkkati sunu kaddu ci ndigalal sëriñ Muntaxa Mbàkke xalifa général de Mouride sëriñ Mamor Mbàkke xalifa sëriñ Masamba Mbàkke sëriñ Cheikh Mbàkke xalifa Cheikh Mamadou Job Mbàkke ak njaboot Cheikh Mamadou Job Mbàkke sëriñ Modou Mayloo xalifa Cheikh Amsadou Lo ak rakam sëñ Ndaam nekk co ak sëriñ Ndaam moom sëriñ Magat Kan ak sëriñ Cheikh Lo ak sëriñ Ibrahima loo ñu gën koo xam ci turu sawru ak sëriñ Xaadim Lo moom sëriñ Abdou Karim sunu kàddu nag dañ koy jëmale ci magi taalibe yi ñi fa waroon te teew di ko wax bokk na ci sëriñ Ibrahima Lo Modou Jooja ak Moussa Malo mi nga xamante ne nii moo jiite daayira nga bu sangaay bu nooru daara yi sëriñ bi nee képp ku fa waaye nekk ci àdduna bi ci réew mi wala bitim réew te yaakaar sëriñ Cheikh loo am satu foo mën a nekk mi ngi lay woo ci bis bi nga xay amuñu lu dul moom jëpp ñu dul moom di ko dundal ca jamono ko seex Xadiim bi joxee sëriñ tu sëñ sa satu ba léegi at mu jot dañ koy màggal xat-xat yi fi amoon yëpp mbasum yëpp màggal gi mës ta jéeg ndax loolu la ko sëriñ bi santoon mag ñi wax nañ ne fépp fu mas a fanaan ànd ak dongo yi dañuy jàng ba bët set bu dee fii ci dëkk bii itam ba ba ñoo dem ca daara ja dañuy jàng bu mu guddi ñu dogal dem ca daara ja noonu la ko tasu fale woon loola tax sëñ Moussa Ka di wax naa diggante deesunga ki laa ba ngaa Seex am satu tax du ñu rayoog malaak kon ñooñu ñoo moom bés bi sëriñ naam am satu nga nee na képp koo xamante ni mooy sa bunt ci Serigne Cheikh Lo Amsatou mi ngi leen di soññ di leen woo te di leen séentu di leen di fàttali itam addiye yi nga xamante ni baaxoo nañ ko daa joxe képp ku ko man sooy màggal te lañ ca def soo ko mënee na nga ko yokk soo ko mënul la nga def bul ko wàññi mi ngi ci séentu ñëpp di leen séentu ci lépp mi ngi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi yéen ñi ñuy seetaan si biir réew ak bitim réew ñoo leen di nuyu bu baax di leen sant yàlla bu baax a baax si taw ji ñu fekk ji ñu defal ñu fekkati bis bi ñaan yàlla ñu yàgg ko fekke kilifa gi ko jiite di sëriñ Mourou Mbaye suñu borom bi yàggal ko fi mu yàgg ko woote ñu yàgg ko ànd ak moom si barke borom Tuubaa kàddu yi may yëkkati nag maa ngi ko yëkkati si sama ndigal yi kilifa di wax si turu sët yi ak setaat yi te bàjjan kuré waroon fa teew ak ñoo jiitu si sët yi ñoo ñoo ndax ñoom ñooy suñu jëwrin muy bàjjan kura ak suñu asan di seen waajur seen seen seen tur laay waxe ñoom nag dañuy woote di woote képp koo xamante ni yàlla dogal na ñu daan jëflanteeg yow daan deman leen teeg yow di dikkalanteeg yow ñu ngi lay woo si suñu bis bi nga xamante ni moom la ñuy amal di seet si ñoom seet yeeg setaat yi bu ñu ne suba la màggal ngaabu tombeeg le huit bi si guddi gi lañ koy def ngir lay taayale ko màggal gi ren it yàlla daa dogal it nañ ko daan defee noonu lañ ko noonu lañ dañ koo dañ koo tuddee sëñ Murlo Isa moom itam moom lañ tuddee si bis bi leen di si séentu mbokki taal bi yëpp rawatina nag sëti sëñ Mahmoudan yi nga xamante ni yàlla dogal na ñaari kër yi di génn kër ñu ngi a baax ak sëti sëñ yi nga xamante ni ñoom lañ tuddee bis bi te ñu daan ànd ak ñoom naka jekk ak nga xamante ni yàlla dogal na bañ njëkkee tàmbali di tuddee ñoom lañ njëkk tuddee guddi gi ñoom itam ñoo ngi leen di woo si bis bu baax te di leen ko fàttali ak sëti sëñ Masamba Kuro Diouf yi nga xamante ni yàlla dogal na ñoom itam ba tey tuddee woon nañ leen ko fi am at te teewut ba tey ñu ngi ànd ak ñoom muy muy gën a rafet ak surtout sëriñ Mouhamed sëriñ sëriñ Modou Lo Dagana ñi nga xamante yàlla dogal na it daaw ñoom lañ ko tudde woon te yàlla dogal ànd gi yàgg lool te yàlla mu sax ak surtout sëriñ Mor Faat Touré Madina Touré ak surtout sëriñ Modou Faat Xari yi ñoom tam ñoo ngi leen fàttali bu baax baax ak surtout soxna Mbène Ngaabu yi ñoom tam ñoo ngi leen fàttali guddi gi bu baax surtout sëriñ Mbàkke soxna Aan yi ñoo ngi leen fàttali guddi gi ak waa daayira Murid Saadix Touba Ngooj ñoom itam yàlla dogal ñu ànd ñoom guddi gi ànd ñu rafet ñoom tam ñoo leen waa si si guddi gi bu baax a baax ak sëti sëñ Modou Lo Issa yi nga xamante ni yàlla dogal na leen ren moom ñoom ñoo ngi itam ñoo ngi leen koy fàttali bu baax a baax a baax sëti ñi nga xamante ni yàlla dogal na gay del mi nga xamante ni maanaam sëñam sa moom te ñoom tam ñu doon ñoo xamante ni mbooloo mu nasu lañ àndandoo di di di di tegandoo di di dóorandoo ñoom tam ñoo ngi leen fàttali guddi gi te te fas ko daan ànd ak ñoom ñu ngi koy it sëti maam daam Issa di fédération bu yaatu boo xamante ni moo lëkkale mboolem fu ndaam ne si biir si biir réew ak bitim réew moo leen lëkk de ñoom itam ñoo ngi leen di fàttaliku di baax a baax te di leen woo ak suñu mbokk bopp yi nga xamante ni mbokk gi yaatu na lool jaxasoo gi am dem leen tëgg dikk di yàgg nay lool muy suñ mu suñ mudu suñ suñ sa daaru salaam ñoom itam ñoo ngi leen fàttaliku di gi te fas yéene si ànd ak ñoom baax a ko defee nag képp koo xamante ni dégg nga woote bi rek nga ne lii mooy sa ñoo ngi ciy sàkku ñëpp di si di sàkku seen teewaay ñoom ñëpp nag wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu nuyo boo xam ne ñu ngi ko jëlee ci suñu xol te mooy nuyoo lislaam di jiital ci nuyoo boobu nag kilifa gi nga xam ne mooy suñu kilifa ñun ñëpp muy sëriñ Muntaxa Mbàkke xalifa général de Mouride di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér ba li mu bëgg a liggéeyal sëriñ Touba lépp mu àggale ko di wax nag di yëkkati kàddu goo xam ne nag mooy kàddu sëriñ du Mayloo xalifa sëriñ am Lo ak njabootu sëriñ am Lo gépp jëwrinam sëriñ Ndaam Lo moom sëriñ Seex ak njaboot gi yëpp ñu ngi yëkkati kàddu googu ci ndigalu sëriñ Modou May ah di woote nag ci ndigal di wax ne sëriñ bi mu ngi wax ni bis bii nga xam ne moom lañ jublu muy bisu màggalu ngaabu mi ngi koy yëgal mbokki jullit yëpp di ko yëgal mbokki taalibe yëpp di ci woo xarit yëpp di ci woo am di jàmm yëpp di ci woo soppe yëpp di wax ne nag bis la boo xam ne bisu ndigal la bis bu bàyyi ko ndigal li nag mi ngi bàyyi ko ci sëriñ Tuubaa xaadimu rasul moo ñëwoon fii ci barab bi toog fi jaamu fi yàlla am lu mu fi def bàyyi ko fi dem woo sëriñ ma sàmba mu woo sëriñ Amsatu ñu toog ci tënk mu yebal sëriñ Amsatu ci béréb bi ngir mu ñëw di ko wattu di ko màggal sëriñ Tuubaa jox ko ndigalul soo demee dee ma ko màggalal bis bu nekk soo ko mënul dee ma ko màggalal ayu bis wu ne soo ko mënul nga di ma ko defal weer wu ne soo ko mënul nga di ma ko defal at mu ne kon ku ne xam na ne sëriñ Tuubaa loolu ñor na ko ndax lépp lu muy def lu def lu par bis bu ne loolu ñor na ko ndigal loolu nag moo dellu siwaat ñu di ko def nag at mu jot ci ndigalu sëriñ du May mii nga xam ne mooy xalifa sëriñ Amsatu mu ànd kook njaboot gi nag ñu mu bis boobu moo dellu si le 9 décembre war a tombe ak ñaar fukki fan ak juróom ci rakaat ji gàmmu sëriñ bi wax ne mi ngi ciy woo ñëpp ndax bis la kat boo xam ne képp ku xamoon li ci sëriñ Touba daal ak li ci sëriñ Touba def foo mën a nekk soo déggee woote bi di nga bàyyi la nga jàppoonte ñëw ndax bis la boo xam ne bisub faju aajo la bis la boo xam ne ni bisub euh, barkeelu la bis la boo xam ne ni aajo joo fi indi muy tawat muy lu mën a doon soo ko fasee indaale ko suñ borom saafara ko ndax loolu la sëriñ Touba lëmas ci biir bis boobu kon nag sëriñ bi nee na yéene ko ñëpp yéene na ko jullit yëpp. yéene na ko bi yëpp di wax ne daal képp kuy ko képp koo xam ne ni daal yaa ngi ñëw nee na na nga yéene waale sa pasteef ak li nga bëgg lépp sooy ñëw nga àndaale ko te xam ne dina saafarawu ndax sëriñ tuubaakat képp koo xam ne ni jóg nga ngir moom rawatina nag mu woote ndax li wooteb sëñ Touba la moom moo woote ñu di ko wuy si kon fu taalu taalibe nekk na nga bàyyi loo jàppoon wuy si sëñ Touba ndax ku wuy si sëñ Touba nga wuy si kon loolu nag la sëriñ bi doon yaatal bëgg kenn ku ne xam loolu kenn ku nekk jàpp loolu xam ne sëriñ Tuubaa woote ñëpp war ko wuy si te képp ku fi ñëwit li nga fi àndaale suñu borom dana ko saafara woote bi nag nee na mi ngi koy yaatal ci Sénégal gépp di ko yëgal kilifay aada yépp bàyyiwul kenn loolu sëriñ Mor dina ko tënk waaye di ko woo di di woo mbokki dëkkandoom yi di woo mbokki boppam yi di woote fii ci di ko njëkke fii ci ngaabu sëriñ Moustapha Lo xalifa Cheikh Ibrahima Lo ak njabootu kër Cheikh Ibrahima Lo gépp ngaabu moom Seex Ibrahima Lo ak sëriñ Ahmed Saw diigaan ak kilifa yi nga xam ne ñoo nekk daara ja sëriñ sëriñ yëpp bàyyiwul kenn kilifa yëpp bàyyiwu ci kenn mi ngi woote ba duy sa ngoog laa dàgga Tayba ak tund wi wër ngaa lépp bàyyiwul kenn fu waaye déggee daal communiqué bi na nga xam ne mooy sa leetar bi ñu la waroon a yët nga bàyyi la nga doon def soo ko mënee te ñëw teew si ci bis bi sëriñ bi nag nee na mi ngi sant bu baax a baax njaboot gi ci taxawaay ak àndandoo bi ñu àndandoo ngir bis bi yéwén sëriñ bi mu ngi leen ci sant te di leen ci ñaanal di wax ne daal képp koo xam ne nii mën ngaa teew si mi ngi sàkku sak teewaay te di leen yéene jàmm di leen yéene xéewal ci bis bi di wax ne daal asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf sëriñ Dame Lo kon mbokki jullit yi mbokki taalibe yi bis baa ngi noonu woote baa ngi noonu kañ la gaaw juróom-ñeenti fan ci weeru décembre deux mille vingt-trois yemoo ak ñaar fukki fan ak juróom ci weeru wolof fii ci ngaabu muy bisub sëriñ Amsatu Lo sëriñ Modou May Lo nag nee na ma ngi koy yëgal mbooleem ñi nga xameen si ñoom la séqal sëriñ bi rawatina nag dëkkandoo yi nga xameen si ñoom la dëkk dëkkal lu rafet te lépp lu ñu xewle mu ànd ko ak ñoom mboolem waa Madina ture si njiitul sëriñ Baara ture di ko yëgal mbooleem waa Diigaan gépp di ko yëgal mboolem waa Touba Fall nee na ma ngi koy yëgal itam euh, mboolem ñi nga xame ni si ñooy waa Dendey tey ba cekkeen daaru naim dala saate daaru xafoor ak ndula ak waa Touba di sangu ak waa njulefeen ñoom ñëpp sëriñ bi nee na ma ngi leen ko yëgal sëriñ bi itam nee na ma ngi koy yëgal maire bu dala ngaabu Mamadou Demba juuf ak mbooleem ñi nga xamee ni si ñooy conseil yi nga xamee ni si ñoo nekk ci mairie bi di ko teg nag ci loxob chef de village bu Ngabou muy Serigne Abdou Salam Lo mu jottali koo tem mboolem chef de village yi nga xamee ni ñoo nekk ci commune bi nee na ma ngi koy yëgale itam ni ñu ko waxe woon mbooleem sëriñ moo Modou Ndiaye Diop daaru xadim gépp di ko yëgal nag mbooleem daaray kaamil yi nga xamante sii ñoo nekk ci Sénégal rawatina ci gox bi te leen di fàttali njàngum alquran mi lépp lu ñu ci man rek baax na di ko yëgale te mbooleem jàngkati xaside yi bàyyiwul kenn nee na nag ma ngi koy yëgal mbooleem autorité yépp doole ko ci njiitu réew mi premier ministre ministre de l'intérieur ak mboolem membre du gouvernement bi di ko teg ci loxob ministre Gallo Ba meeru Mbacké mu jottali ko mboolem eh, ñi nga xamante ci ñooy ay jiwriñ ci nguur gi nee na ma ngi koy yëgal nag mboolem parti politique yi nekk ci biir réew mi ndax ñëpp ak njabootam lañu di ko yëgal ñi nga xamante ci ñooy rey wàllu wér yaram waa sécurité waa sa ñi nga xamante ci eh, ñooy organe de presse yëpp bàyyiwul kenn nee naa ma ngi koy yëgal baax a baax su préfet préfet gouverneur bàyyiwul kenn bis bi jàng alquran la ak xasida ak berne ak ziar ak waxtaan guddi gi nag sëriñ xaadim géey bu tubaa moo koy fanaanee jàng ba bët set sëriñ bi ma ngi ci soññi mbooleem taalibe yi aju ci kër gi moo xam ñi nekk ci biir réew mi la wala bitim réew bàyyiwul kenn kuy mbokk di xarit di soppe di wëlëre boo déggee kàddu yi xamal ni mooy ndaw wala bataaxal li sëriñ bi yónnee ci yow sëriñ bi ma ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu رب كريم واسع خير محبودي سكوري لدى داري وفي البحر والبدي boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàttee bés fu def cloche bi foo leen mën a ne ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo